mu ne France dañ ma ne ko ah waaw ah, sëñ bi la ngeen ma doon toppee nekkatul ci kayit bi kat mu ne ma waaw changé nañ ko léegi division de fausse nouvelle la ma ne ko askay ma ne ko léegi da may placé en garde à vue ci diffusion de fausse nouvelle te yow déglu woo ma ci fausse nouvelle du ma ko signé ma ne ko yow ci biir wax bi laajoo ma fausse nouvelle waxoo ma luy fausse nouvelle bi te man ci sama bopp diffusé wu ma nouvelle parce que balaa fausse nouvelle di am diffusion day am man joxewu ma nouvelle ma ne ko si ñëw ma ko ñu jël ma yóbbu ma commissariat ma fanaan waaye tey ci suba bi ñu ñëwee ñu defar kayit yi dajale ñu dugalaat ñu ci oto bi yóbbu ñu tribunal ñu dem ñu jàkkaarloo ak ñi yor wàllu yoon ci réew ba ñu ñëwee ñoom ñu xool këyit bi xool li nekk ci këyit bi suñuy avocat topp ñu ne dëgg waay waaye waaye rekk waay dëgg la yàlla bëgg waaye ñun lii gisuñu ci lu ñu la mën a topp kon bàyyi nañu la pour nga dellu ci sa biir mooy li ma doon wax léegi rempart bi gën a am solo ci réew mooy justice moom Ousmane Sonko ba mu amee ay jafe-jafe ci réew mi la ma ko fi waxoon mu ngi fi dem leen ngeen génne ko justice même boo ko bëggee bonal sa justice la donc da ngay nangu ne. justice boobu moo war a tegu ci bépp sénégal mm-hmm. et c'est ce qu'on dem nañu wuy ci suñu réew woo nañu mm-hmm. jox nañ leen gëdd bi war mm-hmm. dem nañu déglu leen dem nañu bàyyi xel ci li nga xam ne mooy war ma gi war gi ñu nekk suñu diggante ak ñoom alhamdulilah bàyyi nañ ñu dellu si nañ suñu biir kër waaye damay wax rek ne le monstre qui veut utiliser la justice Ce monstre qui veut utiliser la police et la gendarmerie ça ne passera pas parce que lu ñu mayul woon ña fi ne woon du ñu leen ko may ñoom parce que dañu jugoon di àndandoo di xeex xeex boobu ña ko xeexoon ñu ngi fi ba tey ña ko doon bañ ñu ngi fi ba tey ña nga xam ne ñoo fi nekkoon di xeex loolu démb ñu ngi fi ba tey kon ngeen xam ne encore une fois lii defar Sénégal dafa nekk ci loxo kenn ku nekk ci yéen ñi ñu fal dañu indil dund gu seer indil nu jafe-jafe ci wàllu liggéey indil nu jafe-jafe ci wàllu xëy indil nu jafe-jafe ci ni ñu yore suñu réew dara waralu ko lu may cuune dara waralu ko lu may tële waaye ngeen xam ne yéen les Sénégalais vous avez la possibilité de corriger tout cela parce que l'opposition nekk nañu benn bloc pour le 17 novembre incha allah ñu àndandoo jël assemblée nationale am ay nit yu ñu tàggat am ay nit yu responsable am ay nit yu am yéene ci réew mi am benn bloc générationnel ay nit ñoo xam ne ñoo maasoo te seen yitte dong di defar Sénégal seen yitte di dong nu ñu mën a àndandoowee ba jëli fi ñii nga xam ne ñoo fi nekk mais jaare ko d'abord ci assemblée nationale boo xam ne assemblée nationale de rupture lay doon assemblée nationale boo xam ne dina jël majorité bi ba war a mën a taxawal gouvernement boo xam ne dana nu mën a régler jafe-jafe yi sénégalais yi nekk kon yaakaar naa ne jaadu woon na su ma génnee ci situation bii nga xam ne nekk na ma ñëw remercier kenn ku nekk ci yéen ma ñëw jaajëfal leen parce que su ma jëmm ju xeebu ji bu jaralee nit ñi bàyyi seen soxla nit ñi yor seeni course di ñaan ba suñu boroom def ci li mu ci def c'est important mais surtout di bàyyi xel les sénégalais la diaspora parce que gis naa seen taxawaay gis naa seen mobilisation gis naa seen engagement waaye tam bu yoboo ngeen xam ne yéen les sénégalais de la diaspora xam naa seen yaakaar ni mu tase xam naa ni ngeen amee mbetteel ci Ousmane Sonko ak ñi mu àndal mais ma leen di wax rek ne ñun ñii jóg ñun du ñu ay politiciens démb téye gi ñu ma téye daanaka mu nekk fanug lëmm gu ñu yàq suma liggéey moonte de ci jamono ju réew mi metti waroon na ma fekk may toltolaan nu ma fayee salaire parce que salaire yooyu ci ay njaboot la jëm te njaboot yooyu tey jii bu ñu nelawee du ñu yandoor ndax ñu ngi xalaat ubbite lekkool gi ndax seen doom yi war a dem lekkool fa ma toog fa ñu ma tëj fa ñu ma teg ci benn place njaboot yooyu laa doon xalaat fa ma toog fa ñu ma tëj fa ñu ma teg ci benn place gone yooyu war a dem école laa doon xalaat kon ngeen xam ne lii ñu leen teg yéen a koy teggil seen bopp l'opposition est unie autour de la grande intercoalition dëkk bu ci nekk danañ ci communiquer wax leen fu ci nekk ku ngeen di woteel ak nu ngeen di wote coalition sàmm sa kàddu taxaw nañu ànd ak coalition takku wallu ànd ak coalition jàmm ak njariñ ngir jël majorité député yi fii ci Sénégal ngir mun a régler problème yi sàmm sa kàddu nag yaakaar naa bu ko nit tuddee dal na xel parce que suñu sacerdoce lay doon pour que lépp lu ñu diggee ak askan wi ñu mën ko def di remercier société civile ci seen mobilisation di remercier les forces vives ci seen mobilisation parce que nag mbaal mi ñu mbaaloon ñañu mbaaloon yóbbu leen ci police ngir tëji leen ci kaso bi dank boobu bu jàlloon yeneen dank dana jàll waaye heureusement bi ngeen taxawee ne vous allez faire face bi ngeen taxawee wane mobilisation bu forte ñëpp jóg taxaw ne lii nga bëgg a def yow Ousmane Sonko du fi amee yow lii nga bëgg a def yow Diomaye Faye du fi amee et loolu man Bougane je vous remercie de votre détermination. Je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie de votre engagement pour la défense de la démocratie. jërë ngeen jëf